abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kasalaam sidi baram a'uuzu billahi min shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaan rahim malik yawmi din yaaka naabudu yaaka nastain wa salli allahuma ala sayidina muhammadin ilfatihi ilxaatimi nasir ilhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim radiallahu taala an ashaabi rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ya himmati cheikhi uxduri lana bi hada almaxdari waltaat fi ba nadaratin taati lana bi zafari ñoo léegi suñu darsu euh, nasiha incha allah ci masala yiñ doon laaj Cheikh Tidiane euh, wa su'ila radiyallahu anhu anil jinni hal yadxuluna al jannata wa yatamatta'una fiha kal aadamiyin aw la nasiba lahum fiha wa hal yarji'una turaban kal xaywaanaat Mawlana Cheikh Tidiane anhu dañ koo laaj ñu ne ko waaw ndax jinne yi dinañ dugg aljana di ci bànneexu comme ni doomu aadama di duggee aljana di ci bànneexu wala ñoom amuñ fa benn cër ci aljana wala ndax dañu delluwaat nekk suuf comme rab yi waa jaaba radiallahu anhu yonentu sallallahu alayhi wala cheikh tidiane radiallahu anhu tontu an al qawl alladi huwa indu lxaqi walsawaabi wa yajibu masiru ilayhi an al jaana mustawuuna maa bani aadam fi umumi taklif cheikh tidiane radiallahu anhu mu ne ci tontu bi mu ne eh, wax ji nga xam ne moo dëppoo ak dëgg te mooy lim nekk mu ne lu war la euh, dem ci moom ne jinne yi ñoom ak nit ñi ñoom ñoo yem jinne yi ak nit ñi ñoo yemoo ci mboolem takaalif yi maanaam mboolem atte sharia yi nga xamante ni tëral nañ ko rek jinne yi ak nit ñoom ñoo ci yem bil qiyaami bi amrillah ci jóg ci ndigalu yàlla yi amran wa nahyan ci digle yi ak tere yëpp nag ñoom ñoo ci yem wa tahriman wa wujuban ak lépp li nga xamante ne dañ koo xaraamal ak lépp li nga xam ne lu war la itam ni mu waree ci nit ñi noonu la waree itam ci jinne yi wa fi umumi risala ilayhim ak ci matag risaala gi yëpp maanaam matag yonentu yàlla Muhammad maanaam wooteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu waree ci nit ñi itam noonu la waree ci jinne yi wa daawatihim ilallahi taala ak itam noonu la waree ci ñoom ñu woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala mu ne laa farqa baynahum maanaam amul différence seen diggante ak nit ñi différence amu ci dégg nga mu ne la farqa baynahum wa bayna aadama fi hada al amra maanaam amul différence seen diggante ak aadama alayhi salaam ci boobu mbir ñoom ñëpp ñoo ci yemoo kon nga gis ne nit ñi yàlla dig na leen aljana yàlla digg na leen eh, xuppee na leen safara waxtu woo xamante ne topp nañ ndigal yi bàyyi tere yi topp nañ ndigal yi mooy aljana lañ jëm bàyyi nañ maanaam topp nañ li yàlla tere nag safara lañ jëm Cheikh Tidiane mu ne digle yi ak tere yi xaraam yi ak xalaal yëpp yaa ngi dégg doomu aadama yi ak jinne yi ñoo ci yem waaw mu ne comme nga xamante ne noonu lañ ko waxee ci téere yi dégg nga ci mboolem texte yi rek noonu lañ ko waxee nga xamante ne mboolem ahlu sunna wal wal jamaa ñëpp yemoo nañ ci mboolem ñeenti mazahib yi yëpp yemoo nañ ci min amal kitaab fama zakarallahu anhum fi suratul ahqaaf mu ne téere bi mooy li yàlla tudd ci ñoom boo demee ci suratul ahqaaf ak suratul jinni li yàlla wax ci ñoom mu ne loolu lu leer la woowa sarixun la yaqbalu taawil mu ne loolu du ajoo taawil maanaam di ko yaatal lu leer la wa amma sunnatu mu amma sunna nag qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wax na ne bu'istu ila saqlayni al insi wal jinni man dañ maa yónni ci ñaari monde yi dégg nga ñaari monde yooyu mooy lan mooy monde jinne ak monde nit dégg nga mooy addinaay jinne yi ak addinaay nit ñi yàlla daf maa yónni ci ñoom ñaar ñëpp kon li war ci nit ñi moom mooy li war ci jinne yi parce que yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni mem ci jinne yi waaw mu ne wa huwa xadisun mujma ala sihatihi wa tawaturihi mu ne hadis la boo xamante ne ñépp dëppoo nañ ci ne hadis bu wër la maanaam ñëpp dëppoo nañ ci wéraayam hadis bi nag fan la jóge ko mm, euh, ñu ngi ko jëlee ci Buxaari yi Buxaari yi ko génnee mu jëlee ko ci Jaabir ibn Abdullah mu ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam xam utiitu xamsan lam yu'tahunna ahadun qabli yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jox nañ ma juróom yoo xam ne Eh, musuñ koo jox yonantu eh, eh, sama ginnaaw sama sama ginnaaw dégg nga bu nekk benn bi mooy mu ne nu surtu bi rox bi masirata shahrin yàlla dimbali na ma ci ragal dox ak weer man du ma ragal sallallahu alayhi wa sallam yonantu du ragal du yokkat du am lenn lu koy yëngal loolu nag jikko jikko buur dëgg la loolu jikko njiit dëgg la njiit doo gaaw a tiit déedéet njiit doo gaaw a déranger wu njiit doo gaaw a jaxas jaxasoo njiit nanga nga ànd ak xel mu dal bul mel ni ab demb si rek buñ wax buñ waxee dara rek yow nga fexe pour rek jéem ci génn lay bu nekk di ko lay pour jëm ci génn loolu loolu loolu du jikko njiit njiit du gaaw a ragal yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ne man yàlla dimbali na ma ci ragal roobu mooy du ma tiit du ma du ma lox du ma tiit dégg nga masirata shahrin maanaam dox ak weer waaw tiitaange du ma dikkal dox ak weer maanaam dara mën na xew dinaa toog lu tolloo ku dox weer yaa ngi dégg hmm? te fekk eh, du ma du ma du ma tiit dégg nga mu ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salaatu fal yusalli salli yoon alayhi wa mu ne suuf si yëpp defal nañ ma ko muy sama jàkka muy jàkka ju suuf si yëpp dégg nga al ardu la wax suuf si yëpp mu ne masjidan mu nekk jàkka wa tahuuran waaye jàkka bu sell bu laab mu ne fa maara rajulin mu ne bépp góor min ummati ci sama xeet bi adrakatu solaatu julli fekk na ko maanaam julli def na ko rek fal yu salli na julli yaa ngi sama biir jàkka ji loolu nag hadis la boo xam ne suuf yaa ngi koy taawil nañ ci taawil yu yaatu yaatu dégg mu ne wa uxillat liyal maxaanimu walam taxilla li ahadin qabli mu ne yàlla dagal na ma ci koom gi ci alal yi loo xamante ne musuñ koo daganal ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma jiitu ci yonantu yi mu ne wa utiitu shafaata wa kaana nabiyu yubaasu ila qawmihi xaasatan da nga wa buistu ila naasi ammatan mu ne wa utiitu shafaata man la yàlla dénk may ràmm yàlla jox na ma may ràmm loolu man rek la ko yàlla may bu yemal xiyaamee yonantu ulul azmi sax kenn ci ñoom du ràmm parce que bu ñu leen waxee kenn ku nekk day lay di wax umma bi man sañuma ràmm parce que defoon naa lii defoon naa lii defoon naa kon loolu itam ñu bàyyi ci xel <laughs> mu ne te yàlla may na ma itam dégg nga dañ maa yónni ci euh, euh, mboolem mbindeef yi mboolem nit ñi amatan wa bu'istu ila naasi amatan dañ maa yónni ci mboolem nit ñi waaye wa kaana nabiyyu yub'asu ila qawmihi mu ne yonent yi ma jiitu nag ñoom ci seen xeet rek lañ leen di yonni foofu nag la gaa yi ëppante degré am na yonent yoo xam ne ci seen xeet rek ci seen mbokk yi lañ leen di yónni waaye man nag dañ ma yónni ci mboolem umma bi yaa ngi dégg sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ngi ci saxiixul Buxaari kon nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko ci mboolem xeet yi kon li war ci nit ñi mooy li war ci jinne yi jinne itam kon yàlla dig na leen aljana dinañ dugg aljana ñoom itam ñuy bànneexu comme ñëpp waaye dinañ dugg safara itam ñu leen di lakk comme ñëpp waaw ah, loolu la Mawlana Cheikh Tidiane wax mu ne kullu man i'taqada xilaafu kafara mu ne loolu képp koo xamante ne am na pas-pas ci wuute ci ci hadis bii ni ne yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla yi daf ko yónni ci ñaari mondo yëpp mu ne kooku moom weddi na dégg nga mu ne waan aqada ijmaul umma dégg nga ala ala haada fi umum risala lana wa lahum mu ne mbooleem umma bi mbooleem xeet bi am nañ pas-pas bu dëppoo ci ne dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yónni ci ñaari monde yëpp dégg nga sallallahu alayhi wa sallam Eh, ñoom ñëpp itam wa umumi daawatina wa daawatihim ilallahi taala suñu wootee woote jinne yëpp <coughs> jëm ci yàlla loolu moom ñëpp jëpp dëppoo nañ ci ne jinne yi ñu ngi woote ñoom itam jëme ci yàlla comme ni nit ñi di woote itam jëme jëme jëme ci yàlla ala lisaan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga fi umumi taklifina wa taklifihim bil qiyaami bi amrillah mu ne ak matak taklif taklif mooy atti sharia yi nga xam ne lu war la ci nit ñi noonu itam la waree ci jinne yi yaa ngi dégg ci ñu jog taxaw ci mbiram yàlla comme nit nga xam ne noonu la ko noonu la ci nit ñi di di di taxawee nga mu ne wa haysu wa haysu kaana al amru hakaza fa hum musaawuuna lana fi ma yastamillu alayhi wa mumul xitaab al ilahi wa nabawi min taqriri althawaab wal iqaab mu ne su fekkee ne mbir mi noonu la tëddee nag mu ne kon war nga xam ne ñun ñëpp ci même pied d'égalité ci lañ yemoo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne waaye su kaanal amru hakada bu fekkee ne mbir mi noonu la demee nii mu ne fa musaawuuna lana fiiha fii ma yastamillu alayhi umumul xitaab mu ne na nga xam ne ñun ak jinne yi ñun ñoo yem ñun ñoo ñoom la ñuy traité même pied d'égalité ci li nga xamante ne moom mooy li tënk mbooleem atte yi nga xamante ne atte yàlla la yaa ngi dégg ak atte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñoo ci yemoo ci saxal ci fay waxtu wuñ defee lu baax ñu fay leen waaye ak mbugal itam li man ata allah ñeel képp koo xam ne topp nga yàlla ñu fay la lu baax aw asaahu minna wa minhum wala ci ñun ku ci mooy yàlla wala ci ñoom ku ci mooy yàlla rek yàlla itam mbugal la ñun ñoo ci moo mu ne wano naka noonu itam wa duxulil janna wa tamattu bi li man ata allah aw xufira aw xufira lahu mu ne naka noonu itam moo yem ci moom ak moo yem ci ñun ak ñoom jinne yi dégg nga ne dinañ dugg aljana comme ñun ni ñuy dugg aljana dinañ bànneexu ci aljana comme ñoom itam ni ñuy ni ñu bànne comme ñun itam ni ñu bànneexu ci aljana <coughs> dégg nga mu ne e, ñeel ki nga xamante ne topp na yàlla wala yàlla jéggal la say mooy dégg nga ci jinne yi ak ci nit ñi ci lu yàlla jéggalee mooy yi nga ko doon mooy mu dugal aljana dégg nga nga dugg aljana di bànneexu comme ñëpp mu ne wa kaana muminan min naa wa minhum moo xam ku gëm yàlla ci ñun wala ci ñoom wala adab fi naari naka noonu tam noonu la ñuy duggee safara mbugal leen ci safara dégg nga wa duxuliha noonu la ñuy duggee itam ci safara li man asallah ñeel koo xamante ne mooy nga yàlla walam yuxfar lahu te yàlla jéggalu la min naa tukkee ci ñun nit ñi wa minhum wala jinne yi rek <coughs> mu ne yashhadu li qawlu subhanahu wa taala Cheikh Tidiane yàlla anhu mu ne loolu li koy seede mooy waxu yàlla subhanahu wa taala <clears throat> wa ma urs wa ma benn yonantu bu yàlla yónni lu dut ko war a topp rek ci ndigalal yàlla yàlla yonantu bu yàlla yónni rek li war mooy ñu topp ko ci ndigalal yàlla <clears throat> ak yàlla subhanahu wa bi wax ne mu wax ne man yuti ar rasula faqad ata allah mu ne képp koo xam ne topp nga yàlla rek dégg nga mu ngi mel ni topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku topp yàlla rek topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> Cheikh Tidiane mu ne fa ye sadiqatun fi kulli man ak man qad ursila ilayhim li man amana billahi wa qaama bi riayati xududihi wa ahkaamihi amran wa nahyan mu ne loolu nag lu wér la lu dëggal la ci képp koo xamante ne yàlla yónni na la yaa ngi dégg moo xam ci nit ñi wala ci jinne yi képp koo xamante ne gëm nga ko gëm nga yàlla yaa ngi dégg nga sàmmwante ak dëxalam moom yàlla subhanahu wa ak attam yi ci digle yi ak tere yëpp mu ne fala farqa baynahum wa baynal aadamiyin mu ne foofu nag amul différence seen diggante ñoom jinne yi ak nit ñi ñoom ñoo ci yemoo fi hada shumul ci yooyu yooyu la mbir dégg nga arisalatu wa daawati ilallahi taala te mooy woote jëme ci yàlla yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñoo ci yem wa taklifi bil qiyam bi amrillah minna wa minhum wala acte yàlla yi ñun ñëpp ñoo ci yem digle yi ak tere yëpp ñun ñoo ci yem loolu kon ñu ñu bàyyi ci bàyyi ci xel Cheikh Tidiane mu ne qaala taala tilka xududullah laa man yuti illah wa rasula nudxulu jannatin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha wa dalika al fawzul azim Cheikh Tidiane mu ne lii mooy dëxalu yàlla yi mooy digle yi ak tere yi mu ne képp koo xam ne topp nga yàlla ak yonentam ba mu ne dinañ la dugal aljana yi nga xamante ne mu ngi daw ci ronam ay dex te da nga fay sax daa man dégg nga mu ne wa dalika fawzul azim loolu nag pay gu gu gu gu rëy la dégg nga wa man yaasillah ku mooy yàlla nag wa rasulahu ak yonentam ba wa yataadda hududahu dégg nga ngay jéggi dëxal yi nga xamante ne moom lañ la defal dégg nga nga war koo respecte nga bañ koo respecté nu duxaluhu dinañ la dugal naaran safara xaalidan fiiha de da nga ciy sax daayiman al aaya ba ni aaya bi jeexee <coughs> mu ne aaya boobu noonu fa yamush tamilatun bi jamii ahkaamiha ala kulli fardin min afradil mursal ilayhim alladina umira rasulu bi daawatihim ila allahi taala mu ne loolu yëpp nag aaya bi tënk na at yi nga xamante ne ñoom ñoo tënk mboolem kenn par kenn ci nit ñi ak jinne yi yaa ngi dégg ci yonantu yi itam nga xamante ne yàlla yónni na leen dégg nga ci mboolem mbindeef yi dégg nga ci ne eh, eh, maanaam digal nañ leen ñu topp yonantu yi yaa ngi dégg ci woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote jëme ci jëme ci yàlla subhanahu wa taala Cheikh Tidiane mu ne man yaamal min as-salihati min dakarin aw unsa wa huwa muminun fa ulaika yudxuluna aljanna wala zulimuna naqira mu ne ñi nga xamante ne dugg nañ ma maanaam gëm jëf nañ jëf yu baax yaa ngi dégg ci góor ak jigéen yaa ngi dégg te fekk ñu ngi gëm yàlla Cheikh Tidiane radiyallahu mu ne aay alquran bi wax na ne ñooñu nag ñooñu ñi nga xamante ñoom ñooy dugg aljana mu mooy liñ dajale ci mboolem yonant yi loolu lañ wax dégg nga yonantu bu nekk rek bi mu ñëwee loolu la wax yaa ngi dégg risalaam itam loolu rek la wax te mooy lan woo nit ñi jëme leen ci yàlla subhanahu wa taala su ko defee audio yaa ngi gudd ñu tënk fii allahuma salli ala sayyidina muhammadin haqa qadrihi wa miqdaari lazim la ilaha illallah الله لا إله إلا الله Abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fonnome war ngay sant Yàlla ñu la di jël gëstu loo doon